asalaamaaleykum ñu ngi laa nuyu bu baax a baax a baax di la wane welcome back to daily news bi tey di Tuesday 19th um, of September 2023 uh, ñu ngi jégalu nag si baat bi nag tey because dama xaw a sot tuuti waaye uh, si headline si rek gis nañ ne uh, National Assembly ñoom ñoo wax ne nañ leen wax si bagaas yi Yahya Jammeh yuñ jaay nañ leen si wax dara <coughs> beneen headline bi Sabally ak Sonko ñu ngi leen téye ba léegi. beneen headline bi gis nañ moom Sonko boobu noonu euh, Koutiéndouga Sabaly ñu ne jamono buñ toll nii moom mu ngi euh, moom dafa bañ a lekk <coughs> gis nañ ne UDP leader euh, wax nañ ne wax nañ ne mun naa am mu yóbbu Rambo Jatta si yoon lii mooy headline si ñu ñëw si news bi waaye balaa ñu ñëw si news bi comme nu ma di wax saa su nekk rek please ñu ngi leen a ñaan ngeen subscribe si suma YouTube channel bi Babou Kuyaate Euh, maa ngi dem si TikTok profile bi fu mu nekk noonu si right bi si corner bi rek di ngeen gis YouTube sign bi waaye mu ngi nekk black euh, ngeen press ko rek nga dugg si YouTube bi subscribe euh, ñu ngi leen a ñaan seen subscription bi dafa important si ñun torop torop torop lii la woon waaye ñu dugg si news bi right now campaign manager of United Democratic Party Mamadou Sabally Uh, ak nominated uh, member of Brikama Area Council di Sirifo Sonko ñu ne jamono bu mu toll nii ba léegi ñu ngi téye ñaari nii ñu ne soo leen bàyyee xel uh, am na fan yu passé noonu ñaari dañ leen invite woon si police station bi pour laajte leen ay question waaye buñ ne invité dañ téye gars yi foofu noonu UDP ñoom wax nañ ne ñu ne 72 hours boo xam ne dañ leen war a yóbbu kon ba ñu bàyyi leen 72 hours bi passé na waaye ba léegi ñii ñu ngi leen téye ne tamit dañ ñi ñoom dañ leen bugg a sign kayit boo xam ne ah, ñoom nangu ñoo sign kayit boobu noonu te ñoom si lañ dem ñu bàyyi ñii foofu noonu waaye Momodou Sabally moom wax na ne ah, ñii ah, dañ ko bugg a noppiloo maanaam nguuri Adama Barrow dañ ko bugg noppiloo te duñ mun loolu jamono buñ toll nii tamit ñu ne ñun ñu nekk di investigate ñoom wax nañ ne dinañ yokk ay yeneen charges yi Euh, si kaw Mamadou Sabally bi bi gis nañ ne ñu euh, tout UDP euh, figo yi nga xam ne mun nañu they are very important ñu mel ni Mamadou Sabally ak Sirifo Sonko di campagne manager wax nañ ne ba léegi comme ni nga ko waxee si beneen news bi la ba léegi ñu ngi téye gars yi Eh, way sonko di eh, nominated councillor of brigam area council sonko nde wannañ ne jamono mum tole ni mom mirambi ak eh, ñaka nangombi mom lalla ko daf mo nekk dafa baña leka o mu laal loo xam ne rek si ñoom la jóge o si mbokkaami Euh, Sonko nag lii euh, boo gisee muy def lii mu ne parce que dañ ko teg euh, foofu noonu teg boo xam ne teguñ ko fen fen fen waaye nag police yi seen spokesperson bi bu ko gaa laajte wax na ne mu ne bu Sonko bi de mu ne xamul si dara dafa dégg rek nit yi di wax ne téye nañ Sonko téye nañ Sonko waaye loo xam ne la daal moom si boppam daf ko dégg waaye dina dellusi si si gars yi pour mu wax leen lan moo xew waaye nag wax nañ tamit ne ñu ne ah, ku ku ku ñoo ooyee Lamin Fatajo Lamin Fatajo wax na ne moom ah, keroog ah, si Kairaba station bi Friday bi mu ne dañ ko eh, jël ñu génnee ko si biir motom bi by force maanaam police yi dañ ko génnee si biir motom bi by force te dóor nañ ko euh, ñu def ko loo xam ne euh, nekkut si euh, sagoom comme dañ ko def loo xam ne daal nekkut ne dañ ko ko forcer def nañ ko façon naxaar bu nekk mu ne ñu téye ko foofu noonu 20 hours Fata Diop bii nii moom wax na ne moom asthma patient la mu ne denam li sax mu ngi ko daaneeloon foofu ah, waaye ñu ngi bañ pour mu jël ah, machine am boo xam ne loolu moo ko war a dimbale pour mu pompe asthma bii nii ah, Fata Diop moo wax lii. United Democratic Party seen parti leader bi di lawyer Ousainou Darboe ah, lawyer Ousainou Darboe moom moo a ak mer nag ah, lu ko merloo ah, mu ne Rambo Jatta Rambo Jatta moo tax mu mer ñu ne eh, Rambo Jatta am na audio bu mu génnee mu ngi wane Ousainou Darboe bokk na si affaire rey police yu ñu def nii. xam na si dara waaye Ousseynou Dabo Saturday nag euh, bu mu ooyee journaliste yi euh, di wax ak ñoom euh, lii nekk na loo xam ne daf ko naxari torop torop torop mu ne Rambo Jatta bi nga xam ne mu ngi toog si a embassy bu nekk South Africa mu ne moom Ousseynou Dabo moom contact na lawyer mi jamono buñ toll pour ñu jël yoon ñu teg ko si ñu yóbbul rambo jaata si yoon mu ne mista jaata bii nii mooy rambo jaata rambo jaata dafa bokkoon si udp bi nii bala moo dem muy muy muy nekk si aprc si yaaya jame after bu ñu reyee ñaari polici nii ñu ne audio bu génn rambo jaata di fa wan ne udp seen eh, parti leader bi u Ousseynou Dabo euh, xam na si affaire yi killing bi nii lii nekk na loo xam ne dafa naxari Ousseynou Dabo torop torop torop jamono ñu toll nii euh, mu ne dafa yóbbu Rambo si yoon. National Assembly members yi ñoom ñoo euh, waxtaan si kàddu ñu juboo si kàddu ne ñu ne. am na compagnie maanaam am na place yoo xam ne eh, ñooñu dañ war a delloo xaalis bi mbaa ñu wax leen xaalis yoo xaalis yooyu noonu fan lañ ko dugal ak naka lañ ko def lii nekk na loo xam ne ñu ne eh, auditor general bi indi 2019 eh, report of government account bi ñu ne gis nañ ne am na loo xam ne maanaam dañ doon yaaxal loo xam ne jaar yoon maanaam ñu ngi jël xaalis bi di ko def loo xam ne jaarul yoon ah, ñii seen ah, lii ñu wax nañ tamit ne si ah, si seen finding bi nii engage nañ stakeholders yi lu dem si affaire yi report bi nii waaye ñoom National Assembly members yi ñoom seen leader jël nañ steps su nekk nii ñu auditor jëlale ñoom seen <clears throat> resolution bi dem na ba 38 points maanaam euh, place yoo xam ne jël nañ ko euh, war nañ ko euh, seet keemaan bi alaaji es daabo alaaji es daabo moom lu mu njëkk a wax mu ne mu ngi gërëm ñi bu baax a baax a baax seen liggéey bii nii parce que ah, def nañ liggéey boo xam ne ah, dafa jaar yoon te dafa dafa jéggi dayoo ah, wax nañ tamit ne ñu ne dañ bëgg a xam Yaya Jammeh asset sam yi fan lañ ko def lii nekk na loo xam ne dañoo laaj minister of justice ñu ne pour mu isil lañ report boo xam ne report auditor général bi la pour uh, documents yooyu noonu jaane commission bi ak treasury receipts yi lii yëpp dañ ko bugg a xam parce que ñu ne xaalis boobu dem na si 22 million 319 thousand 957 uh, uh, comma 92 butut lii lii moo nekk xaalis boo xam ne ñu ne si bagaas yi Yaya Jammeh lii la wane ay Gambie É, eh, babaa maanaam lii lañ amoonte rek eh, di di wax ne rek eh, mm, waaye balaa ñoo dem rek ñu jàng suñ jàngite tuuti rek mu mun si wax tuuti National Assembly members si su fekkee ne luñ commencé nii dafa déggu si ñoom man maa ngi leen a wax job well done te ñu keep doing parce que ñoom ñoom <laughs> am ngeen xam ne ay moto yooyu noonu faatewuñ ko nag te loolu na ngeen ko xalaat bu baax a baax a baax waaye nag lii dafa important trop ngeen ngeen teg government ngeen wax ñu wax ñu suñu xaalis yi fan lañ ko nekk di def parce que ida xam nañ ko xamuñ ko Gambia mu ngi bankrupt right now jamono buñ toll nii Gambia amatu dara dara dara so lii nekk na loo xam ne beneen jàng tamit tamit gis nañ ne tamit euh, Rambo Jatta Rambo Jatta nag euh, foog naa lu mu wax noonu dafa uppa parce que ku mel ni yaa euh, UDP seen parti leader bi Ousseynou Dabo man comme am not UDP am not APRC or NPP man Gambien la ku mel ni Ousseynou Dabo dafa fightal Gambia from day one depuis time yaa jame fu things yi méttee so Rambo Jatta boobu noonu time boobu noonu gémmiñam baa ngi si lem Eh, ñoom ñëpp a ngi noppi so tey ñoom ñoo xeexoon loolu ba eh, Yaya Jammeh jóge foofu nii so moom Ousainou Darboe foog naa eh, he deserve a better respect than am na wax yoo xam ne dafa rafetut lii lañ amoon tey